tout à l'heure dañ fay dajee waxtan actualité mais d'abord gay gars actualité on va parler également qui a xam Boulaye Dia bi nga xamné aujourd'hui il est entré dans l'histoire de l'équipe de Salernitana wax également ci Jean Lopy bi nga xamné Marseille aussi ming ci ak également le euh, salaire stratosphérique bi nga xamné tek nañ ko ci Lionel Messi ak Al Hilal mais d'abord image ba ngi ni NBA Joel Embiid mom lañu tab mu nek MVP de l'année au niveau de la NBA mom nak remercier na ki nga xamné nak mom ngeen gis di Harden néna na daf ko doon jappalé sa su nek diko def lépp pour encourager ko mu nek li nga xam moy donc MVP motax lolu loolu la ko jagleel ki nga xam ne également moom mooy la légende du basketball mondial di ki nga xam mooy Michael Jordan gis ngeen ko mom ak soxnaam mo nek ni ah ki moy soxnam demoon vacances nak du côté de Marrakech donc au Maroc foofu dal la dem euh, feexal xolam ki nga xam ne Michael Jordan benen histoire nak ki nga moy donc ki nga gis ni di moy skin moy skin nak mu euh, yaayam neena na dañoo ñàkkoon xaalis benn jour rek mu doom boo ko ay guddi ne ko yaay mu nako ko ba waxu naroo ma wax ne dañ la jël signé loola ca Juventus mu nako waw non dama ñëw aussi nga bëgg ñëw dëkk ak man depuis bobu également neena moy skin a changé leur histoire mais aussi ken du saint Maxima mom ñaari montre la tak <laughs> ñaari montre la tak ki nga xam ne nag donc euh, Turam ah, donc ñëw na ko nii ah ba ba Lira Thuram ah donc le frère Thuram ñëw na ko mais saa yow ñaari montre xanaa mooy pour boo xamul heure nga mën a am ci beneen bi heure quoi xam nga moom gars yi parfois dañuy ëppal quoi takk ñaari montre ki nga xam ne également nag moom ngeen gis nii di Modric Modric nag booy bi ko doon laser bi teg ko fa booy bi du Sénégalais de <laughs> booy bi daal il a 21 ans yi moom lañ soupçonné jàpp nañ ko jàpp nañ ko par rapport daanaka wax depuis sànq nag Xabi Alonso ah actuellement de xam ko ah au niveau de l'Allemagne il lay entraîné Bayer Leverkusen il est réel il ne Real daf ko bëgg mais aussi on parle de lui du côté de Tottenham comme ni ma dit ko y a aussi mooy actuellement Lille nag d'accord na fay 22 millions yi nga xam ancien club au niveau Sporting au niveau du Portugal doon réclamé 45 ans de réclamé mais Lille nee na fay euh, li nga 22 millions yi Milan aussi ñoom pare nañ pour def ay effort pour recruter euh, définitivement plutôt prolonger ki nga xam donc kii nag di Oussem Aouar Oussem Aouar AS Rome moo ci gënoon jege. fi mu ne nii nag yeneen club dugg ci Milan dugg ci on parle de la Juve on parle de l'Inter en tout cas club italien daal ñooy xëccoo fi mu ne nii kii di Oussem Aouar le joueur euh, de Lyon bi nga xam ne récemment la ne moom Algérie lay daal di jouer ki nga xam ne mooy Sabitzer Sabitzer nag dafa tontu ci li nga xam ne ndax Bayern mën na jël championnat mu ne Bayern dafa bëri ay vestiaire bi ay joueurs expérience donc gëm na ne Bayern dañuy jël championnat bi quelle soit la difficulté bi ñuy am ñoom nee na Bayern daal moo jël Bayern bi nga xam ne actuellement Émir bi nga xam ne bëgg a Manchester United moom nee par rapport ak cible yi nga xam ne ñoom la bëgg indi du côté de Manchester Manchester bokk na ci ki nga xam nak moy donc Kingsley Coman le joueur formé au Paris Saint-Germain joué nak fa nga donc ci Bayern Munich nee dal mom moom na ci cible yi nga xam mom lañ bëgg indi bu fekkee né émir bu Qatar mom mo jënd li nga moy Manchester United ki nga xam ne ngeen gis ni également dootuñu leen ko présenter McAllister le joueur de Brighton euh, argentin champion du monde mom nak fi ne nii mi ngi gëna a Liverpool ndax Liverpool ñi ngi commencé waxtaan ak Brighton pour mu daal di ñëw renforcer seen équipe bi McAllister gars yi nañ c'est presque fait ki nga xam nak moy donc Cesc Fabregas ah, gars yi laal nañ ko nga gisee li nga xam équipe bi Chelsea mu ne pas tactique il y a rien nee amul absolument rien amul tactique amul dara loolu la wax gars est-ce que d'accord ngeen ci li nga xam nak mom moy li Fabregas wax du côté des Blues de euh, Chelsea euh, Blues de Chelsea nga xam également fi qui nak ki nga moy donc aujourd'hui ñoo gars yi commencé wax ne traître la parce que lii publié <laughs> <laughs> Jordi ñëw gars le la publier li lii la publier gaay nak nenañ traître la parce que mom moo nekkoon joueur Chelsea au Arsenal ñu gagné len ah, ñom ñu gagné à ah, ah, Chelsea momi photo lool ki nak di déco gaay nenañ semaine bi warna na ci si du côté du euh, FC Barcelone pour waxtaan ak ñom finaliser ndax waawam dédé accepté accepter poste directeur sportif bi parce que mom moy le grandissime favori en même temps c'est l'agent de Rafinha mais aussi moy ambassadeur Barça ca Brésil pour recrutement brésilien qui nak gaay Jean barthélemy Diouf Jean barthélemy Diouf un joueur excellent hein, du euh, général de génération foot un jour boo xam ne gars hein, pour moi c'est un jour sous côté temps yi il est en feu Jean Barthélémy Diouf nii daal temps yi da ngeen a xew Diouf nii da ngeen a xew macha allah kii di Boulaye aujourd'hui il a encore marqué un boulet de canon pour son 13e but avec Salernitana et ce qui fait de Boulaye le meilleur buteur en une saison de Salernitana battre na euh, li nga xam mooy recordu Marco Dibayo Dibayo gars war ngeen ko xabol ko xamul après dina na benn vidéo dougal len photo ngeen mën ko mais Boulay Boulaye est est en feu. Boulay marque des boulets de canon et aujourd'hui encore une fois club beaucoup ko jënd donc de valeur marchande club yi mais aussi que John Lopi, de Rennes aussi long au niveau de l'Angleterre mais également Marseille ils sont intéressés pour recruter aussi qui dit John Lopi donc bonne chance un joueur extraordinaire carton quoi à part ça on se donne rendez-vous tout de suite dans l'autre chaîne Baba Show pour parler également de ki donc Jude Bellingham nan lañ def convaincre mais aussi on va parler aussi gars yi de l'histoire du massacre de du camp de Thiaroye lan moo tax ñu rey original véritable histoire de l'année de di jox il tax ñu rey condition lañ leen reyee ñaata lañ ci rey a ñi bëgg am histoire bi yéen bëgg également le sport bi am culture générale pour seen pour seen on avance ensemble on se retrouve tout de suite sur Baba Show abonnez également jaa